ngay juum ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu ñi nga xam ne moo waral lii yëpp muy suñu bàyyi di suñu kilifa di suñu sëriñ waaye di suñu amee ci politique muy sëriñ Moustapha Sy jërëjëf. Serigne Moustapha Sy jërëjëf. Serigne Moustapha Sy jërëjëf. ndax dañoo am bàyyi mag ak kilifa. bokk ci kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi. ndax lii teel a sama bopp ci réew mi. ba pare assumer responsabilité boobu taxaw bi.

ni daa am na liberté ci suñu ànd ak ay waa tey bu ñu amee biir dañ koy jaawale ak gaaw yi maanaam président biir kilifa diine am ay gaaw yoo xam ne Sénégal xam nañ ko waaye nag biir dafa parti politique et ñoom de tout parti politique waaye am na ci la béykat bu ñu gën a jëf li Sénégal yàlla baax ci ñu mën a gën a mën a mën ci ay intervention ay gaz mais mieux porté au Sénégal dans le monde di ci ci biir. Thank you. indi xam-xam ci politique nga def ci politique ak justice ci politique boo ko yor mu war a gis sa biir lañu def ci kuréel yi ñu ngi ñu ko ñu war a tëj te ñu def ci ay nekk sa mbéj ko mooy politique léegi li ñu def gëm-gëm ñu koy jëm fii mooy yasante génnoo gëmul bu génnoo gëmul génn alal réew mi ak nawet bi wooyate mu nekk dana doon politique ñu sant ci biir ba mu toog. moo tax ma ne yéen waa Touba waxal suñu ànd bii di jaaxal di mel. citoyenneté directe et participante. da ngeen ne. perspective de gouvernance mais d'indépendance pure. perspective de gouvernance. mais d'indépendance pure. suñu am fii. li ñu mel ni fii ci suñu doom. xam nga xam nga tey ku dugg ci kër gi sax bi boobu xam naa ne xëy na ay transat moo fi nekk ndax couleur yi bokk ñu ne blanc et le blanc. moo tax mën nga bëgg wax naa ne lu gàtt yéen askan. jaaree ci jaaree ñu ko wax tout le temps. ni Serigne Moustapha nee na la ngay def def na nga sur le terrain moom lu muy def moom mooy def te mu ne que dem ngeen dans douze ans bu toll yàlla dans douze ans bu toll yàlla tey jiite Sénégal ak li ñu xam ne ñu jiite Sénégal est ce que xam nga ñu génn ji bu soobee yàlla mën na xam te ñu saxaar si ay dugub wala Ousmane Sonko wala Khalifa Sall wala Malick Gakou wala SDE wala Aïda Mbodj wala Koungheul Mbodj waaye daal 12 mois ci ñu toog ne ko monsieur le président Bugün bakımaya zorun akıllısı var. Thank you. pour doog a ji au-delà des vingt-cinq ans ñu xamal ko. Macky Sall li ma ko wax mooy ay mbiram dafa jeex tàkk. bu fekkee onze moo ko ko ci plan aussi. bu fekkee plan moo ko ko ci volonté c'est terminé. bu fekkee volonté moo ko ko ci Joola ba Mbam. bu fekkee Joola moo ko ko ci santé ak Mbam. productivité wax ko joxal la mooy jaayeen bi au moins. Macky Sall yàgg naa taw ay huit mille douze ans lañu toog yëpp douze ans toog la ak la doon douze ans yi ñu toog yëpp douze ans jaay boole la ak ci jege local bi waaye nag am na benn point boo xam ne maa ngi ko wax Sénégal yëpp ñu déglu solo la paix et la stabilité dans ce pays mooy suñu matière première bi moo jiitu pétrole moo jiitu gaz moo jiitu or moo jiitu zircon Macky Sall moo fi nekk président bu njëkk a créé ay ministre ay milice ay Samba Boy dugal leen ñu jaxasoo police yor ay renseignement yor ay fetal di ko tuye ci Sénégal yi loolu kenn du ko nangu tuye ñu ngi lay gën a am dernière fois nga koy ay ministère ndax xool ci daje xam ni bu doon créé ay ministère yomb nañu lool ndax daal ñu particularly the continent there. What you have done in your country. ndax dafay ñëw ci koo xam si ay nit yu Macky Sall yor ko ak wéyal ko ñu def ay tefal ba ay naat yi yeneen yu doon def les kaw yu jël la bëggoon ñu doon tënk koo bloqué pour ba ñëw ñu jëlee ay tefal loolu gàtt Sénégal la te maa ngi doon gàtt Macky Sall ndax benn bis bu laalee benn ci mbéy mi di nekk le peuple va le sortir du palais. dans le Portugal si le jour comme tous les dictateurs yoo xam ne jàll mbokk biir rassemblement bi fan la tey waaye di doon lu mu def ci ñoom Tamba ndax ba tey yi ñu def dafa am solo. message que vous lancez au monde entier que Macky Sall est politiquement et sociologiquement minorisé dans ce pays. Si nous sommes le deuxième matin, quel est le gouvernement Là, on s'en fait des réalités. Dans la réalité, on a mis des gouvernements. Parce que c'est le plus transporté et militant et démocrate et téléphone. Nous, beaucoup de monde, nous, beaucoup de monde. Là, ça fait ñii dañu di rafetee tey jigéen ñi ñu ngi rafetee lool ci Kër Massar ñu ngi doon rafetlu keroog Mbacke ñu tiit def interdire ko yooyu ak sànni ñun jàpp na fan yii bu ko ñu ñëwalee ci nekk gisaa bi ci bëri bëri. Thank you. waaye li nga xam ne assemblée boo xam ne saa yu mbir Sénégal yi def na ba Macky Sall xam ne xam ne ci moom ba Macky Sall xam ne ci moom ba Macky Sall xam ne bien que nekk yooyu ba Macky Sall xam ne ci ñu jógee ak ñu taw dara muy kaw sa bopp du police du gendarmerie du armée de gouvernement